dañu doon jël suñu ay alal sax di jàppale université ci Sénégal ñuy nome ay ñoo xam ne privé la ñu nekk ñu si nekk ba ñu dinañ ci def action loolu aussi maanaam daal si gàttal ñëpp jooytu nañu ñaawlu nañu li li fi am te ñaan yàlla lii mu bañ fi amati ndax su fi amatee ak déjà ni mu am fii nii wax nañ ko waxuma la ñun li ñu perte si ay loo xam ne dañ ko defaroon pour askan gi pour ñin loolu dañ ko war a defalaat mooy maanaam déjà am na ñoo xam ne son liggéey dinañ ko perte ndax fi ñu doon liggéey yàq nañ ko ñi ñuy wax aussi alalu waa bitim réew ak lii mais loolu amul ñun suñu bopp dëkk amul dëkk si àddina bi boo xam ne laajoo am li ñuy wax investissement direct étranger maanaam ñeneen jóge bitim réew indi son xaalis investir ko fii nit ñi di si liggéey loolu secteur privé national kese mënu ko amul fu mu am si àddina bi kon boog alal yooyu alal boobu ñuy wax alalu waa bitim réew la wala alal bi ñuy wax alalu sénégalais la dem nañu ba nga xam ne sax kenn xametul lan la yépp la ñu yàq te loolu war nañ si nit ñi war nañu delloo seen xel ñii ñun ñëpp ñu àndaat politique yi li ñu leen di wax tous les jours te du tey la tàmm nañ leen di wax waxtaan leen li ngoon di def ngoon def ko mu nit sax mënoon na xalaat balaa nit ñi di grève ay mardi mercredi nga xam ne dañuy liggéey ñu def comme yenn dëkk yi ñu ngi grève samedi. ñu bàyyi marche semaine bi di toj liggéey di yàq liggéey nit ñi ñoo ngi wax fi ñun ñoo ñëpp a ngi fi jooytu ñu fi yàqule ñëpp a ngi fi jooytu ñu fi yàqule man mun naa wax loo xam ne loolu du fi mais lu mel ni ay tabaski bi di ñëw mais xar sax amatul ndax borom xar ragal na indi xaram ñu siif ko ñu rey ko jël ko donc loolu mënul continuer. loolu il faut ñu arrêter loolu ñun nag duñu dinañu continuer di jéem a dox ci jàmm boobu parce que ci jàmm la yëpp xej suñu amatul jàmm amatuñu dara amul entreprise amul dara kon boog vraiment ñoo ngi ñaan ñëpp ñi bàyyi loolu ñi bàyyi xel ci loolu ñi bañ aussi comme ay entreprise di leen di menacer ci li teg son liggéey la ñuy def loolu yëpp war nañ ko bàyyi